cant ak gërëm ñeen leen yéen ñiy teewlu Diaspora News TV dal leen ak jàmm ci seen flash d'info du mardi 24 novembre septembre euh, li ci gën a fës bokk na ne bi rek mooy Mame Diarra Fam ma nga xam ne daal dinay génn xamle ak ñàkk àndam li nga xamante ne bi rek mooy coalition boobee ñu nama taxawal dox ci diggante ñi di waa APR ak ñi nga xam ne ñooy waa PDS moom nag nee na xel mënul nangoo que ne ki nga xamante ne bi rek mooy eh, APR bi nga xam ne Macky Sall moo ko jiite woon ak li mu woon ki nga xam ne mooy Karim Wade Wade jàpp ko tëj ci kaso ñu ne déedéet waaye mu daal di koy jël génne ko réew mi Sénégal tey bu ñëwee ne dafa fas àndaat ak ñoom pour ñu daal di dem fële nga xam na li nga xamante ni bi rek moom la ñu daal ca dund ci diiram boobu te moom bokk na ci ña nga xamante ni bi rek dafa taxawoon tak takal ki nga xam ne mooy Macky Sall jëmaarloog moom fas yéene xeex ak moom mu ñuy dund ci réew mi mu lànk kandaane duñ ko nangu gis na tamit ki nga xam ne mooy Abdoulaye Wade ni bi rek Macky teggoon na na ko ko ginnaaw bu mu jàppee da moom ne ko ràpp ci kaso gi lu ni mel nag tax na moom nag àndul benn yoon ci booba coalition bu ñu fas yéenee na nga xamante ni la ñu daal dinañuy ànd ci bale coalition wax ca la nga xamante ni bi rek mooy caisse de dépôt et consignation naga ni démb nag la ñu tëj seen ay porte jëm ci képp koo xamante bi rek nam nga dugal sab caution foofee pour ca législature yu ñu daal di dëgmal ñu ngay woote nag di wax que ne képp koo xam ne la nga bi euh, mooy ab sec ndax dafa yombal liggéey bi ba ki nga xam ne mooy directeur ba bu jëlee war leen a jox li nga xam ne mooy seen quittance muy kayit ga nga warloo ak ñoom day yomb daal moom nag dafa tax na mu daal wax que ne na ngeen indi sec boo xamante ni bi rek ko pare dina daal di toll ci 15 millions te ñu def te na moo gën a gaawee ndax délai bi ñu leen daal di may nekkul li nga xamante ne bi rek mooy bu favorable dafa gaaw a jeex ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yi ñu daal di dëgmal ci weer wi ci lay daal di tëj képp koo xamante ni bi rek fas yéene ngaa bokk ca gole jongante nga yebbal sa mandataire mu daal di indi la nga xamante ni bi rek mooy caution ba comme nañ ko daal di waxle wax ci ka nga xamante ne bi rek mooy réduction des comptes ya Ahmed Aïdara nekk maire bu waaye daal dina cay wax yey yàbbe jëmale ca la na mel ginnaaw ba ñu daal di déposé wala ba ñu daal di taxawalee li nga xamante ne bi rek mooy benn pôle judiciaire financière ñeel la nga xam ne mooy réduction des comptes ya moom Ahmed Aïdara nee na ginnaaw bu ñu jàppee ki nga xam ne mooy Lat Diop jàpp ki nga xam ne mooy Jérôme Badiagé ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Sylla yeneen tet dina daal di wadd ci la nga xamante ne bi rek mooy ci réewum Sénégal ñeel ay nduxum ndax moom mi nga xamante rek mooy Ahmed Aïdara da dinay taqal ki nga xam ne mooy Macky Sall ndax nee na daal dinay jël ay dossiers yoo xamante bi rek yu bëree bëri la te ay collaborateur am ñoo ko moom mu daal di koy jël a dugal ci quoi que dina ko génnee te bu baa kenn ku nekk di nga taraayeex sa moroom donc nañu daal di xaar ci kanam tuuti wala lu yàggatul dara ñu gisaat yeneen dossier wala yeneen tête ay euh, auto personnalité yoo xamante ni bi rek dinañ am ci coow li mu taq ci rip euh, Ahmed Aïdara moo xamle lu ni mel wax ca la nga xamante ne bi rek euh, mooy euh, ki nga xam ne moo nekkoon ca euh, diwaanu daaf muy ñi nga xamante ne bi rek les éléments de la sûreté urbaine ñoom nag ñoo daal di ko dem jël ko yóbbu ko foofale ca diwaanu Ndungu Siir moom mee nag di Mamadou si Dione nekkoon ancien directeur administratif et financier jëm ci agence de la réglementation pharmaceutique ne koy jàpp li waral ñu koy jàpp liñ koy toppee bokk na ci li nga xam ne mooy warum escroquerie détournement di dañoo public faux et usage de faux ki teg euh, gogon euh, plainte cam dam du kenn ku dul ex directeur bu de la santé di Bernard Gningue moom moo ko daal di plainte lu ni tax nag ñi nga xamante ne mooy élément de la sûreté urbaine daal di koy dem jëlee fa mu daal di nekk wax la nga xamante ni bi rek moo ñeel wàllu mais international dañu koy daal di doore ak ñi nga xamante ne bi rek euh, mooy fële ca diwaanu Israël gis nañ ay attaques yoo xamante ni bi rek ñu ngi koy daal di amal ñeel ñi nga xamante ni bi rek ñooy fee ca diwaanu Liban mbir ma nag jamono ji ñu toll nag dafa commencé jéggi dayoo ndaxte la ñu jot a faat ci ay bakkan daal dinay takk lool foofee ca diwaanu Liban tax na nag ministre bi nga xamante ni bi rek moom la ñu dénk wàllum santé muy génn di wax ka nu tolloog euh, deux cent soixante moor yoo xamante ni bi rek 21 euh, enfants ñoo ci jot a nekk gun nekk na foofee ca diwaanu Liban attaque yu ni mel nag mën nañ ko daal di wax que ni euh, ñii di waa Israël li tax ñu koy def lu dul soutien bi nga xam ne ñii di waa Liban amal nañ ko euh, jëmale ko foofee diwaanu Gaza li ñuy ndar keppee xibaar yi mooy fay diwaanu Gana lu tolloog fanweer lu tolloog ñeent fukk ak ñaar ci ay doomu aadama la ñu daal di teg loxo li ko waxal du leen dul ay manifestation yu ñu doon amal ñu daal di leen koy gantal ñu fipp daal di wàcc ci mbedd di di taal ak euh, yàqaate lu ni nag tax ñu daal di leen jàpp yóbbu leen euh, li ni mel nag ñoom ñu ngi yuuxu wallu di wane seen ak mer ak seen ak ñàkk ànd ca doxalit ba nga xamante ni bi rek jiite réew mooma mu ngi koy doxalee di ngi seen àq ak seen yelleef li moo gënoon buur ci xibaar yi di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd beeg teewlu di ngeen di topp Diaspora News euh, TV di leen wax rek ngeen di wéy di escorter suñu ay programme bépp programme bu ñu daal dugal ci chaîne leen daal di xëcc ci suñu yeneen programme jërë ngeen jëf